ahousu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Seex Ahmadou Bamba Mbàkke xadimu rasul xasiida gi noo ngi ko tudde xalifa bismillahi ma jóg jaaju jajjama war fëkk sag di bi takk tawar sàll ngor rëkk sag ba kuraan jël di jooru di way bëgg laaj sarti ab xalifaat ña ko wër da nga gis ab xalifa bu jub bu ñu naw gis ku nuy tegi tiis teg ñu gàcceeg na xar da nga gis ab xalifa bu xam te du am te du man te ko man su defee it mu te mu jiitu ñu topp ci moom du ko doy te ko jóg bëgg a dem mu ne kii dafa war ndax jotul réew mi waxtaane ab xalifa ku ne xam ku la mag ñëpp xam ña la jur nañu sos kuréelu saytu teg ca ñu xam ku juddooti ñu yëgle ko bind sa tur yor la yar la ñu jàngal la xiir la ci njub def ca gëm yàlla ak kersa ak jomba war kuñ xamul ku la jur kenn xamul ku la yar donte daa mag du war kenn jox ko sa mbir buñ xamee ku la jur te juboo jàngu la mësulaa toppe ndax toppalaat dana war bu ñuy tànn xalifa na xellu te xam la ko war mën a jiite yéram te du lor ku ñu jaayanteel jiital lay jëf sa ndigal bu ñu xam sa xiruk bëgg doom ak jabar alal ji ñëpp bokket nga sàmm ca ngor nang ca doylu tamandu ku ñëw jot sa cër alal ji bul ko jëndee bassin ak i kër wata bor ak i soxna di sañ sa di wër mbokk geeg njàng meeg mi ak dund bi néew ji doole yi bàyyoog jirim na la ñor rikk waay cër bu rëy bii nga yor na la doy bul nu war na nga sàmm sa diineeg sa ngor bàyyi jagal yàlla xam na xolam ak xelam diine ngor akuk taalibe dong nga ko ñor jagal ab jullit la murit la bu xër ci sëriñ bamba fiir ca tayor fi tugar maa ngi ñaan sa borom wërsëg a gudd fan texeg feeg fanu jëm mucc aaru ci lor mbàkke bawal alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulier 2021 ahmadou jong bay jagal baleen ma ak jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati